jottali suñu nuyoo suñu cant suñu ngërëm seeni organe de presse respectif nuyoo bi suñu kilifa diine yi ak suñu kilifa aada yi xam naa bu ma ci jiitalee sama nijaay yi ci Tiwaawoon sama kilifa ga ca Tuuba dana ci feeñal mbégte ma di leen nuyu di nuyu suñu mbokku laayeen yi suñu mbokku xaadr di nuyu ñëpp rek sama nijaay Serigne Cheikh daf ma daan wax ni bu ñu bind ba pare dañuy toog di waxtaan mu mak mu ne dañu ko musa laaj nan la ñuy taalibe murit bi ak taalibe tiijaan bi ak taalibe xaadar bi ak taalibe laayeen bi nee na li mu muus di tontu mooy ku ci jubal de nekk ñeent ñépp ku ci jubal la nekk ñeenti ñépp moo tax mu ne li yàq senegaal mooy dañuy fekk lu ñu war a xeetale ñu xeexale ko li yàq Sénégal mooy dañuy fekk lu ñu war a xeetale ñu xeexale ko ñun Sénégal dañuy wax ne benn bopp lañu kenn mënuñoo xar ñaar loolu lañu wax wante dama jàpp ni gëmaguñ ko bu gemon ko gëmoon rek weesu nañu fii bu ñu gëmoon ne benn bopp lañu kenn duñu xar ñaar weesu nañu fii bu gëmoon ne catholique bi mbokku jullit bi la kon weesu nañu fii ndax yonent yàlla Isa moom leer na ko ni mbokk yonent yàlla muhammad sallallahu alaihi wasallam. yonent muhammad leer na ko ni Muusa frère la leer na ko ni Ibrahim maamam la donc ñoom dañoo xeetale li nit ñi di xeexale tukkulóor bi man sama xarit benn bakkan boo xam ni ñoo màggandoo yarandoo muy Ibrahima Dia ak sama benen xarit bo xamni ñoo daan wujje école muy Cheikh Amidou kan mom lañu tuddé Cheikh Amidou kan bu l'aventure ambiguë nekkon randu len Sud 1 di jël premier ma randu len Sud 2 di jël premier ñuy ñuy wérante nak ma mom ku ci raw ba yalla dajé ñu concours collège Saint-Gabriel

xeetale suñuy wuute te bañ leen a nañuy xeetale suñuy wuute te bañ leen a bu ñu bëggee Sénégal jël premier ci Afrique Afrique jël premier ci continent yi te lu mën a nekk la on nous enseigne que nous sommes le berceau de l'humanité. Mais il est temps qu'on enseigne à notre jeunesse que nous sommes surtout l'avenir de l'humanité. Il faut que les jeunesses africaines en soient convaincues et la jeunesse sénégalaise en tout premier lieu. Et c'est vrai, je l'ai dit à Ousmane Sonko, mon frère ou neveu, quand je suis allé prier Fajar chez lui le 27. Mais avant d'être allé chez lui à Fajar en moto, dissimulé pour me cacher des khannas qui was pour me cacher aussi des euh, gens qui échappent euh, ou qui tentent d'échapper à la volonté d'Allah et dont il nous demande de nous méfier. Hein. Il dit, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube contre le mal de tous les êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité lorsqu'elle s'approfondit, contre le mal des sorcières qui soufflent sur les nœuds. Moi,

واذكر لوا دفني مانسيون واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا sama turandoo rekk la yàlla sàkk amul moo tax bu ma déggee ñu naan cadavre politique il est ma ne mort bi nag moo ñëw tey di wëliis pour ngeen xam ni mu ngi fi le xam naa ne du loolu moo leen intéressé li leen intéressé mooy ndax am naa xalaat ci troisième mandat walla déet du lu ma xalaat ndax danaa doon candidat wala déet looloo leen fi indi yéen ñi seen xool bi ak seen kanam yi mais nag fokk ngeen nangoo taaxirlu wolof daf ni boroom ndékki ku ko njëkk a yeewu ki war a joxe ndékki dangeen ngeen koy bàyyi Macky Sall pël pël day sàmm Macky ab sàmm la te dafa am lu wolof yi wax ci sàmm daf ni bala ngaa toj gémmiñu sàmm Hamal la mu wëliis ba pare waaw Macky nag dafa bu ngeen mais belle, belle, belle. mbel mbel pourquoi et quel intérêt te ma di wax je vous parle d'expérience en 2012 man maa jël alal ju

ndax nee na ma bu ma Ablaye Wade woowee ci bureau danaa ko wax li ma ci xam wante sama obligation de réserve mayu ma ma wax ma dajale opposition bi yëpp Macky Sall la ngi ci woon ci biir Moustapha Niass Tanor ñuy tase fële ca Ngor Diarra ñu ne duñu campagne duñu def dara Ablaye Wade daal amul droit troisième mandat amul droit troisième mandat nangam nangam et bu ñu xëyee nañ dem place de l'indépendance yëngal def lii def laa et ci lool la nekk 2012 de yéen ñépp xam ngeen ne bu dee xam-xamu doxal campagne électorale rek li ma ci def kenn defagu ko ci Sénégal bu leer na 1988 laa ko door j'avais 28 ans et j'étais le premier directeur de campagne électorale de l'histoire politique du Sénégal. Je n'avais que 28 ans. Je venais de boucler mes deux années et demie chez PricewaterhouseCoopers en tant qu'auditeur et management consultant. Et j'avais fait sur une feuille de papier volante un schéma à WAD et il m'a dit, viens diriger la campagne. Et je lui ai dit non, moi ça ne m'intéresse pas vos histoires-là, moi je veux gagner beaucoup d'argent. Beaucoup. Énormément. C'est ça mon objectif. Parce que, et je l'ai écrit ça, je l'ai écrit dans une interview avec Momodou Oumar Ndiaye, qui dirigeait SOPI à l'époque et il avait titré Je me prépare à l'exercice du pouvoir. Et à sa question de savoir ce que j'allais faire, je lui ai dit que pour travailler en toute indépendance avec celui dont on disait que c'était le cerveau le plus performant du continent, du Cap au Caire, de Casablanca à Johannesburg, il me fallait deux choses une formation académique d'exception pour que les avis que je lui communique soient toujours étayés et scientifiquement irréfutables, et une indépendance financière totale pour toujours conserver ma liberté de lui dire ce que je pense sans penser à ma dépense quotidienne du lendemain. C'est ça que j'ai dit à Mamadou Marnier. Donc je lui avais dit à Wad, ça ne m'intéresse pas. Il m'avait fait des tonnes de promesses, il n'en a tenu aucune. Il m'avait dit, tu vas être député, euh, ton salaire de Price Waterhouse, je vais le tripler. Je vais d'ailleurs te donner une avance sur deux ou trois années de salaire. Je vais t'acheter une maison. Il n'a rien fait. Il n'a fait que raconter des histoires. Rien de ces promesses n'a été tenu. Et quand je suis retourné faire le bilan de cette campagne électorale, qui, même si elle n'a pas été victorieuse, avait quand même considérablement boosté l'image de Wade, qu'est-ce qu'il me raconte Oui, c'est les Boubacar qui m'ont dit que si tu étais député, tu allais devenir le deuxième série Diop tu me trahir, etc. On va bla, bla, bla, bla. Je lui ai jeté les clés de sa 505 rouge et je lui ai dit qu'il ne me reverrait qu'après que je sois totalement, financièrement, totalement indépendant. Et par la grâce de Dieu, à l'occasion de la visite de James Baker, qui était ministre des Finances des États-Unis, l'ambassadeur des États-Unis de l'époque, Lennon Walker, m'a invité à l'ambassade et m'a présenté à James Baker en lui disant ce jeune homme-là était le directeur de campagne de l'opposant Abdoulaye Wade. Et Baker me serre la main en me disant I myself was equally campaign manager to Bush. But the difference between us is that I won, you lost. mu man yow da ngaa dégg li may wax bay mu ne mu xam nga xam nga donc James Baker wax ma loolu ne ma moom moo nekkoon directeur campagne yu Bush États-Unis moom gagné na man dama ñàkk donc daf may conseiller ma dem ci école bi mu jànge moom pour jàng fa technique bu tax bu ma nekkaatee directeur de campagne ma gagné loolu moo ma yóbbu l'université de Princeton aux États-Unis James Baker moo bind ñu bind ma ne amna un programme qui xamni ni ben nit lañuy ñuy ci adina bi Chine Inde Mexique Pérou Afrique fep Yo, xamni amnañu potentiel leadership ñu fayal leen comme s'ils étaient déjà en train de travailler yóbbu leen former leen loolu moo ma fa yóbbu ma Price Waterhouse créer sama cabinet cabinet boobu moo jaay ceeb bi américain don may Sénégal khalis ba le don jox gouvernement Sénégal pour nous déforcer une politique de développement agricole Baba djum mi directeur de l'unité de politique agricole amna lu mu ci wax amna lu mu ci bind bi nga xamee ne jóge nañu ci loolu ñu war a dugg ci gouvernement premier gouvernement majorité élargie xam ngeen fan la jóge bi ñu ñu jàppee 88 yóbbu ñu rëbës man lañu njëkk a génne bi ñu ma génnee ci kaso bi ñoom Boubacar dem fekk ñoom euh, Wade ca ne ko luñ ñu la waxoon lu tax ñu bàyyi ko ñun bàyyiwuñu ma dem sama kër benn colonelu gendarmerie ñëw ne ma kaay wuyu ma ne ko kan mu ne ma Jean Collin moo nekkoon ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République bari doole lool Madame bureau Colin mu ne ma voilà yow xalé nga sét nañu say mbir yaangi jangé institut d'études politiques de Paris ci section ba fa gëna jafé muy économie et finance diplômé nga fofu 1986 di liggéey nga Price Waterhouse yaangi tak sa soxna le 4 février manam waxa waxa

jabaru général Waly Faye mi sant na ma jàpp moo ànd ak Aminata Tall cousinam ñu fekk ma kër Ablaye Wade ne ma waxtu sàngam lañ leen di jàpp si yow nag bu ci bopp ñëwal ñu am fu ñu ànd làq la fa ma dugg wax ko Ablaye wàdd mu ne ma fexeel ba yow buñ la jàpp puisque man moom mënumaa rëcc aw ma fu ma jaar mais yow buñ ma jàppee nga lijjanti lu ma génne loolu moo tax ma génnaat ànd ak ñoom Aminata ñu dem am kër gu ñu ma la kër Aminata lañ ma njëkk a yóbbu jëkkër ji mer parce que casse pourquoi tu te mêles de ça Aminata fippu moom tamit ma dégg leen ñuy xuloo ci salle bi ma génn ma ko je vais non il n'est pas question qu'on nangam mais je suis quand même parti et elles ont trouvé une autre solution mais bi ñu may wër gisuñu ma dañu dem sama kër euh, nijaayu jabar fi mu Villa Rose ils ont réalisé que c'était une maison d'un militaire qui était capitaine et qui était l'aide de camp du général Nian, sous-chef d'état-major général des armées, qui lui-même était l'adjoint donc de Mansour Sek, du général Mansour Sek. bi nous, photo mariage bi ay colonel rek nous ñooñu dañ maa xam xamuñu ma Colin ne nañ ko wool euh, général Niang général Niang moomu moo lijjanti lu tax ñu jël si ma puisque Colin daf ko ne on veut lui parler général Niang boobu moom laa recruté comme ministre de l'intérieur mu ñibbisi jóge Bissau moom la Ablaye Wade wéetal ne ko Idrissa danaa ko rendi ba paaka bi laal peron bi gis nga xare yàlla est-ce que comprendre ngeen li may wax général Niang boobu ma may jabar ca 88 ja Je may xeexal Ablaye Wade pour def ko président de la république ba ne l'ai ko ko en 2000 mais li ma ci li ma ci neex leçon ba ma ca jëlee puisque 88 ñaari intervention laa def télévision ñaar benn bi dama dal ci sama kaw nijaay Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum dalinu dalinu teggin ni mu ko mais je faisais le malin je croyais être intelligent Mane, ne Serigne Cheikh moma wax ni sa mam Seydil haj Malik, nee ñaanal nguur ko xamni bu amé ca katan ga cey da lore mu ngi mel ni nga tiim wurus di ci diw neefare ginaar man ba may wax loolu juuf laa jàppoon ni mooy lore ca kàttan wante bi ma ci Ablaye Wade lore ñoom far ba ñëw sotti ay neefare sama kër ci laay soog a dégg li sama nijaay doon wax il m'a jamais répondu hein alors que j'allais au relais, on discutait, le Kamil, pour me battre. Rien. Mais il avait raison. boko ñaanalé ko xamni ame bu ca amé katan lor ci ay doomu adama ben. tim wurus di ci diw ko def

te yemul foofu ak man def cee dolli bi mu demee saraxu sëriñ wu Mbacké saraxu sëriñ Mansour Sy borom daara ji ñu boole ma ak junior ma dem wuy ji ko mu bari ay jam-jam lool comme ni ma ko sëñ Saliou waxe woon lii ma lay sant sëñ musaa Mbacké naawel mën na ko témoigner dana bari jam-jam lool wante boo ko nangoo yal na la yàlla defal li muy defal taalibe bu nangul sëriñam walla doom ju nangul waajuram bu ñu la tegee ca lingeer ca naaj wa di la sàmmloo ay ginaar toog fa fala la ker gi di fekk ndax ànd ak sa baay daanu moo gën kenen ak keneen sa baay ma gëm loolu ñëw wuy Wade vous tous là vous me l'avez reproché hein. tous hein il était contre tout le monde était contre tout le monde tout le Sénégal et le monde entier était contre madame wuy ji mais man li ma fa wuti woon bi ñu waxtaanee quatre heures de temps dama ko ne yow nag Ablaye Wade yow yaay génn ci télévision bi nga toog nga wax ñetti yëf benn bi mooy nga wax ni li ngeen ma tuumaal lépp ay kàcc la dara amu ci wax na ko walla wax bànd yaa ngi fi ñaareel bi nga wax ni man musuma laa bàyyi musuma démissionné PDS pin si bii ma takk pin su PDS la ma ne ko yow yaa dajale bureau politique dàq ma demal nga waxaat ni yaa ma soxla yaa bëgg ma dellu ci sa boo ko waxee dafal ndànk rek boo ko waxee ba pare à 17 heures dinaa wax man Le ma lay tontu mu wax ñetti yëf yëpp mais yokku ci dara daf et il est d'accord et ça je n'ose pas à son endroit utiliser le mot wante ma waxee ko na Serigne Cheikh lola mooy loola na aras Mak ñi danañ amna lol bu ko mag defee yëngal aras puisque bi may dem diko ko wuy ji dama bàyyi Ousmane Tanor ak Abdoulaye Bathily tàggu leen mais il fallait que me rende compte mais bi may dem diko ko wuy ji ci la Awa Gueye en délégation d'un conseil constitutionnel de déposer sa candidature le même jour donc je n'étais pas allé là-bas pour des histoires de poste etc moi ce que je gagne à l'heure finance plusieurs salaires de ministre ma répète, ce que je gagne à l'heure une heure de travail de Idrissa Seck finance plusieurs salaires ministériels. Donc, fille, jarna fille, fi ci jar. Je sais naa ne lii may wax yëpp intéressé wante bu ma ko jiitalul bu ngeen déggee li ngeen déglu si du ngeen teewlu lii may wax léegi nag bala ngeen a xàddi quand ma ñëw ci li leen intéressé Bernabé, je souhaite et je soutiens le fait que Ousmane Sonko puisse être candidat à l'élection présidentielle de 2024, quelle que soit l'issue du procès en appel et même en cassation. Pour qu'il soit clair aux yeux des jeunes qui sont avec lui, que ça ne sert à rien de casser et de brûler. Personne n'a peur de leur leader. En tout cas pas moi, qui ai failli être son patron et il me l'a rappelé quand je suis passé le voir. Il est venu à deux reprises chez moi avec l'intention de militer dans mon parti. Maintenant, qu'est-ce que je suis allé faire chez Ousmane Sonko le 27 le 26 daman Dogu, ak président de la République mu jiite ma timis ma jiite ko gee ñu julli ba pare ma ko timis ji ci li nga biral ayatul yu nga ak Quraysh ma firil ko ñaar yëpp ne ko lii lay signifier mais bi muy songu ayatul kursi bi yokku naa sama teewlu ndax daf ma daloon ca Ablaye Wade ja bi ma ko teeroo mu jógee foofu ñëw permanence rek songu ayatul kursi yu ma ni yàlla na de <laughs> sinon dinañ am problème mu tàmbali alaaw la alaaw la man yaa wóorul de mais Macky bosam dafa leer naññ ma ne ko Quraysh bii nga ñaareele ci la sa lettre de mission nekk fal yaabudu rabba haza al bayt alladi at'amahum min juu wa amanahum min xawf suñu boroom mi ñu dafa warloo ak ñun ñaari devoir nous nourrir contre la faim et nous rassurer contre la crainte ma ne ko mooy sa lettre de mission mooy lettre mission pour chef de famille ñaar la yàlla euh, lonk ci sa ndodd ñi nga yilif yaa leen war a dundal ba du ñu xiif yaa leen war a aar ba du ñu jàq ma ne ko te fii ñu toog di reer reeru buur bu neex bii am na ñu reerul am na ñu dul ndékki suba am na ñu dul ay te réew mi jàq nañu ndax ñépp jàpp nañ ni le bu Ousmane Sonko dee wuy ji tribunal réew mi dana takk ma ne ko am naa ci xalaat mais du ma la wax xalaat dama koy jëfe ba pare bu doxee alhamdulilah bu doxul yaa moom sa décret bii ngay signé nga dàq ma mais da ngay nangu ma doxal te duma la wax li may doxal lan la mu ne ma d'accord wóolu naa la ma dem ci laa demee kër Ousmane Sonko léegi nag la ma wax ak Ousmane Sonko moom ngeen bëgg a xam est-ce que am na ku fi mokkal suuratu najm ki kii moom mokkal na ko xam nga bi yàlla bi yàlla di wax ak yonent bi daf ni wa awha ila abdihi ma awha wa awha ila abdihi ma awha mooy et il révéla à son serviteur dañ kumpa yi ne taweet seen nopp wax wa awha ila abdihi ma Awa. Il révéla à son serviteur ce qu'il lui révéla Moi c'est yoon Neouji. la ma waxanteeg mom, seen yoon newu ci wante dal la ca ci pour Sénégal ak yéen ni, ba 3 avril marche Amoul. Nous défilons, défilons, bu président de la république invité opposition bi ñu gàntal ndax seen mbokk yi nekkoon ci kaso bi li jur loola ca fajar googa la judd salaamun hiya hatta vous savez aux États-Unis aux États-Unis le président de la république des États-Unis à chaque fois qu'il est amené à prendre une décision la dernière phrase qu'il prononce avant de prendre la décision "Moi, it is in our vital national interest to do this Lorsque bu ko américain waxee rek bu doon dalaa a bombe nucléaire boye bo pare moom la lay do, pare na ça veut dire que la réflexion est parachevée ils ont déterminé de façon extrêmement précise leur intérêt vital national et ils agissent en conséquence. It is in our vital national interest to do this. Ben, ce Fajar-là, it was in our Senegalese vital national interest to have Idrissa Seck on his bike ride to Mr. Ousmane Sonko's house before dawn. Donc, maintenant, pourquoi je soutiens sa candidature Il a le droit d'être candidat. Selon la constitution sénégalaise, selon la constitution sénégalaise, ñett ñoo amul sañ déposer dossier conseil constitutionnel ñett ñett mom, bu ñu dossier dossier ba du Voilà, voilà warula jàll du ma ku njëkk ki mooy ki amagul fanweri at ak juróom ki am 30 ans wala 29 ans ti costume karawaatu bu yobbo dossier ñu rejeter ñaarel bi qui ki amul nationalité sénégalaise exclusivement manam guinéen bi japp ni Afrique bolo na bu yóbboo dossier ñu ne ko warta jàll ñetteel bi mooy ki jot a def ñaari mandat yu teg loo ñett ñii ñoom seen dossier du jàll wala warul a jàll maintenant mu des bu Ousmane Sonko Ousmane Sonko dafa nekk ci kanamu yoon yoon di ko loi électorale code électoral bi ni élection war du du peuple bi décidé ay homme politique ñoo daje waxtaan xalaat et ñun sax changé nañ ci lu bari dialogue politique national code électoral bobu mo yok ci ñett yi ma wax té constitution bi wax ko ay mbir ay mbir ñoo wax ni de façon définitive madame dem nga première instance nous daan la nga dem appel ñu daan la nga dem cassation ñu la cour suprême paré na ci justice du Sénégal wax na né yow mi kat lañ la ñun justice bi seet nañ ko am na lu ci am daan nañ la bii daan ñu ne am na xeeti daan yoo xam ne bu buñ la ko daanee sañatoo nekk électeur bay nekk éligible loolu code électoral moo ko suba suba suba bu homme politique yi dajaloo waatoon def dialogue national wax ni nañ ko ci dindi ñu yóbbu ko assemblée nationale ñu voté ko ñu daal di war a mën a nekkaat candidat suba wante bima ma waxee mars ja ba bal yi tak ñu nangam nangam dama wax ni na Ousmane wax lima ma budé dara na wax d'ici à l'extinction du soleil personne ne pourra prouver ma culpabilité parce que nak man loolu la waxone. dama jakarlo ak Ablaye Wad, jakarlo ak Adina. waxuma won rek ak wa Sénégal maa ngi wax ak sama partenaire ya nek États-Unis dégg né Ablaye Wad néna loubal na 40 milliards yuma ma denc Amérique Té ñom ñu xam li ma am xam ni ma ko amee du ma Ablaye Wad, puisque Kala Wuna, def averou u Yoyou, yooyu ñu ormal ko mu yëngal aras def je me suis défendu et je l'ai dit au commissaire Hassan Ndoye quand il est venu me... Puisque euh, quand il a fini l'enquête vers 13h, il a dit dans son PV, nous n'avons aucune preuve à charrier contre le Premier ministre Idrissa Seck dans le cadre des chantiers de Thiès. Nous avons quand même. Ça nous avons bagages pas pareil. Nous avons un bulletin de renseignement mais on a trouvé chez moi des armes, des sommes d'argent incroyables et des appareils sophistiqués. d'ailleurs loolu Ablaye Wade am na ñu bari ñu ci saaga ndax nee na leen lu tax avant ngeen ko yóbbu perquisition yéen ñett yooyu yëpp am ngeen ko mënoon ngeen faa def ay arm def fa xaalis def fa machine indi télévision ñu filmer ko ngeen ne moom la mais ngeen bind ko ci seen bulletin bi yóbbu ko perquisition ñëw naan ma dara newu fa yéen danaa ma ne ko yàlla dafa xarañ sëriñ Cheikh daf ma doon wax jaam bi bu bëggee noppalu day nangul yàlla xareñam ci amal namm-nammam ci jaamam bu bëggee noppalu day nangul yàlla xarañam ci amal namm-nammam ci jaamam Ablaye tus la ci mënul dara tout chef d'État qu'il était, je lui ai rappelé son origine et sa destination sous peu. ñu ne tegginuwul ni ma puisque Ken du wax ancien spermatozoïde et futur cadavre ma circonstances circonstance yi ma ko waxe bu dellu siwaatoon ma wax ni ko yàlla waxe te moo gën ñagas ni am déet nutfatan ida a ah, jeex bo booboo gën a ñagas na ko firi am firi ko <laughs> firi rek voilà firil nutfatan ida tumna kooku bu ko firee léegi ñu bari benn waaye musna mani ma ni yow nag degna la ngay khat aflahal mu'minun nangam nangam legi bo egge ba ci والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم بوكو فيري سمك نخ ما ملكت جي موم بوكو

daf ñu ko daan defal nee na waaja daa jóge daara ja rek ñu jox ko benn soxna xamul lu mu war a def ak soxna si moom jóge na daara ja c'est pas normal c'est pas normal donc je lui ai dit dans mon intervention en mars dernier, si tu n'as rien fait, dis-le. Si tu as fait, demande pardon. Ne sois pas orgueilleux. L'humilité est la mère de toutes les grâces. L'orgueil est la mère de tous les péchés et de tous les échecs.

imam yi ñokoy firé julli day firi julli budé digënté diggante bi ak boromam la wante budé digënté diggante bi ak moromam relation rek lay firi lolu la tambalé alladina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو مغرضون والذين هم لذكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون Ceux qui préservent les dépôts à eux confiés et qui honorent leurs engagements. Lolo manque Sénégal ceux qui préservent les dépôts qui leur sont confiés et qui honorent leurs engagements. Que les dépôts soient matériels ou immatériels, et surtout lorsqu'ils sont immatériels. Mais confiez votre secret à quelqu'un, secret de Dieu, secret des dieux, secret de trois secret de tous la tubaab yi wax manam bo wéeteeg nit wax ko ce secret lola mel na ni yàlla rek nga ko waxal bo bu ngeen nekkee ñatt nag mom melal ni ñépp nga ko waxal mais Sénégal bu njëkk bi sax wóorul ko waxal secret bu génné bëgg na wut daraja ca xam ga bu xam ñi ci des li xew fokk mu jéem ko feeñal pour yëkkati maqaamam te xamul ne ba muy def loola ma ngay nërmeel darajaam walladina hum li amaanaatihim wa ahdihim raawun hum li amaanaatihim wa Malheureusement, on va maintenant reprocher à Idriss Seck qui a conscience que la consultation peut soumettre à risque les secrets qu'il partage et qui donc s'abstient de partager cette information pour la protéger et la préserver, on va dire non et le jour où vous Sénégalais vous serez digne de confiance eh bien je partagerai les informations avec vous ce n'est pas encore le cas ce n'est pas encore le cas hier j'ai réuni un cercle restreint de mes responsables là-bas à Bandia, dans la forêt, dans ma ferme, entouré de 50 hectares de vide. J'ai pris une décision et je leur dis, cette décision-là ne doit pas être publiée. Je l'ai lue ce matin dans la presse. C'est la nomination de Yankoba Badiatara comme directeur de cabinet de Maintenant, est-ce que c'est lui tu n'as pas à être d'accord. Tu n'as aucun pouvoir sur ma décision. Qui a fait la fuite Il était dans ce cercle restreint des responsables qui m'entourent. Et vous pensez que je suis en sécurité si je dois partager avec eux des secrets d'État que je partage avec le président de la République Et c'est pourtant ça qui aurait été normal, puisque ce sont eux mes compagnons les plus proches mais je ne le peux pas. Et c'est ce que nous avons fait, Macky Sall et moi, pendant le dialogue politique national. On s'est retrouvés chez la mère de Marem Faisal, puisque j'avais refusé d'aller le voir au palais et j'avais exigé qu'il vienne chez moi. Et ça, c'est une exigence qui date de 2012, quand Morungom, son directeur de cabinet, avait dit Mout ma Mot. J'ai dit à l'émissaire de Macky Sall qui est venu me voir au point E pour tempérer la situation, je lui accorde 48 heures. S'il ne le sanctionne pas ou ne le dément pas, je m'en vais de Benno Bokoyakar et il n'aura plus l'opportunité de me voir aller lui rendre visite au palais. S'il a besoin de moi, c'est lui qui fera le déplacement au pouvoir. E. Et la solution qui a été trouvée était de dire, OK, on aménage chez la maman de Mme Faisal, à qui, au demeurant, je rends un vibrant hommage. Moi, je ne la connaissais pas très bien, puisque du temps du SOPI et du PDS, c'est Maki, Ousmane Massakindia et Amin Total qui étaient mon, euh, disons, ma garde rapprochée avec les FADA et, quelques jeunes. Et Alun Sow, le, ministre Alun Sow, et c'est eux qui venaient plus fréquemment chez moi, ils, connaissaient Ndaï Penda. Moi, j'avais très peu d'occasion de me rendre chez eux, donc je ne connaissais pas leurs épouses très bien. Mais je l'ai découverte cette femme-là, dans son engagement, dans son intelligence sociale, dans son humilité d'exception. Mais je lui ai dit, à la limite, si c'était toi la candidate, j'aurais eu du mal à te refuser un cinquième mandat. Tellement elle est engagée au service de ses causes avec humilité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça a échappé à beaucoup. Quand elle est venue sur la tribune officielle au défilé, devenu Premier ministre, Dial, nous, président Assemblée nationale, ministre de la Défense, Dial, nous, président Assemblée nationale, ex devenu à la tribune officielle. Pourquoi elle a fait ça Elle était en train de m'envoyer subliminalement le message qu'au-delà des apparences républicaines, au-delà du protocole républicain, il y a quelque chose de plus fondamental qui nous lie, c'est notre culture, et c'est pour ça qu'elle est venue devant moi et elle a fait ça. Et, et, vous savez, vous savez, le l'élément culturel est très important. Vous m'entendez souvent, puisque vous euh, me il va me fatiguer. Vous savez que je suis très très très amoureux de ma femme. Très et eh. et eh, eh, vous savez non non c'est pas seulement c'est pas seulement c'est pas seulement le fait d'une beauté physique rare vous en êtes d'accord hein? nous, nous, venons de fêter nos, nos 35 ans de mariage et, et vous savez que moi, je suis, depuis que je suis enfant, depuis que je suis enfant, j'ai un comportement royal. Je, ne sais que ce que je veux. Et la, première fois, quand je suis allé lui faire la cour, elle a refusé. Je ne comprenais pas. Pourquoi tu refuses <laughs> Mais elle me dit, mais Nobumala. Je dis, mais comment ça C'est pas possible. Et je vais voir euh, ma mère et je lui dis, cette fille-là, je l'ai draguée, elle a refusé. sama ne ma dit « de ko ndax yow un doxaan bu bañé rek yaruñu et eh, je retourne la voir, je lui dis voilà ce que ma mère a dit. Et alors Mais elle a fini par accepter. Donc ma mère avait raison. Et ça, ça s'adresse à toutes les filles. Je vais vous raconter une histoire que Serine, euh, Moussa m'avait racontée, je pense que c'était en Hawaï. il me dit que soxna binyu jaara bi ñu bi muy war dem kër maam Mor Anta Sali mbusoo be gépp nijaayam yi sant dañu ko taaj di ko yeb di ko wax fii nga jëm daara la lañu fay ji barke te yàlla dafa dogal maam Mor Anta Sali am alal ba noppi am tuuti naqari deret disons niko olofi di waxe bu sañ nañ ko wax donc biko ko nijaay yi ak mag yi ba elle était jeune hein euh, une jeune femme du Baol biñu ko yebee ba pare diko wax euh, bon je change les noms puisque il il me les avait donnés soxna mbenn mi wala soxna ni ñu yore seen kër seen sëy rafet na nangam na bi ñu pare mu ne leen li ma leen bëgg a tontu daal mooy soxna Maryama ndeyu yonent yàlla Isa ak soxna Aminatu ndeyu yonent yàlla Muhammad alayhi mais est-ce que vous réalisez ça une jeune femme du Baol à peine je ne sais pas 20 ans qui n'est jamais sortie de là qui transcende son espace géographique immédiat qui transcende ses frontières temporelles et qui va se comparer à celles qui ont porté les meilleures créatures de l'univers. Donc, l'ambition, c'est ça. Et vous savez pourquoi elle a pu faire ça Puisqu'elle connaissait le verset où Dieu dit « Khalaqal maut elle a dit que le comportement qu'elle aurait eu si elle était leur coépouse n'avait comme destination finale que de produire l'équivalent de ou Rasoul li abdin muridin sadiqin lahu bi Mune, mune ne mune, mune, Touba bienheureux plaisir éternel puisque le paradis c'est pas un lieu où l'on se rend c'est un état d'esprit c'est un état de conscience où on est heureux en soi, indépendamment des éléments extérieurs. Donc, il dit, cette, joie-là, kan le mourir, c'est l'aspirant à son seigneur infatigable qui retourne de façon infatigable c'est celui-là le mourir, Et c'est à lui qu'est dû le bonheur et le plaisir. Banchi ci ken, kenn bañ ci boole lenn xëccu jëm ci sa borom, bañ koo boole kenn bañ len. boole lenn en tout cas man seigne la wax daf ne ma dama gëstu njub ba sama boroom defal ma ci tawféex ma gëstu lislaam ba sama boroom defal ma ci tawféex ma gëstu sëñ Tuuba ba sama boroom defal ma ci tawféex noonu mu ma ko defale noonu laa la ko bëggalee noonu mu ma ko defale noonu laa la ko bëggalee te na nga jàpp ni sa boroom moo la gën a xam sa bopp moo la gën ci sa bopp ham kook sa bopp noppul sa boroom moo la gën a xam sa bopp loo xam-xam sa bopp yàlla gën laa xam sa bopp loo bëgg-bëgg sa gën bëgg sa waaw ki la gën xam gën bëgg doo ko bàyyeeg sa bopp nopp donc man na ngeen jàpp ne dara tënkuma kenn tënkuma kenn jénguma te loola am na te jàngaguma xat fakka kabla xat bassa fadla fa dur walla wa nafahu jaay kenn amul capacité tënkuma kenn amul capacité jéng ma Cheikh siidi Mokhtar ba ma ko fekkee Nganda ànd ak Moustahine ak sëñ Moustapha doomi sëñ euh, sëñ Moussa Nawel mu ni ma bu dee àddina ngay wut sëñ Touba am na ko mën na la ko defal bu dee alaaxira ngay wut sëñ Touba am na ko mën na la ko defal yow nag yaay tànn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 ñu bari yëkkati ci ay kàddu ah, ku jël werdu tijaan boo ko bàyyee nangam nangam d'accord mais man musumaa jël werdu tijaan donc mucc naa ci loolu Serigne Cheikh moo ma yar musumaa jox werd junior fonde bi mu doon dongee kër soxna maam Anna Camara sama yaay moo ko doon araw musuma jox werd Pape Malik Si, musuma jox wér ñooñu la xam ñooñu ñoy samay nijaay ñi ci des xamuma len xeyna Serigne Maodo Si, mo ciy dolleeku mais moi en dehors de cette famille de Serigne Babacar je connaissais pas les autres je n'allais nulle part mais Serigne Cheikh c'était mon maître c'était mon ami c'était mon oncle c'était pas mon marabout donc Sénégal nañu maandu Serigne Moussa mi ñu ci tuumaal question bi mu ma njëkk a bi mu nee ma dama bëgg nga gindiku ci sa maam Serigne Touba daf ne ma tiijaan yi ku ciy sa kilifa ma ne ko sëriñ Cheikh moo ciy sama nijaay puisque sama yaay moo ma nettali ne bi mu ma ëmbee sëriñ Cheikh daf ko doon visiteloo ay këram àjjana di ko expliquer fleur yi bu ci ne fan la odeur bi bàyyi ko mu ne kon man mi mu ëmb te xamagul puisque boobu amul échographie amul dara xamagul ndax góor la wala jigéen la mu ne bu ma juddoo sëriñ Cheikh lay tudd cest bu ma nekkoon jigéen aussi Serigne Cheikh lay tudd far sam yàkkamti dem meeri déclaré Idrissa Gueye Idrissa Gueye moo doon mu xaddamu sëriñ euh, Babacar fii léegi ñoom ñaar ñu xuloo sama yaay ne moom Serigne Cheikh lay tuddee sama papa ne Idrissa ñu ànd seeti sama turandoo Idrissa Gueye Idrissa Gueye ne leen yow Assane Fatou mii moo am dëgg léegi xam nga nu ñuy def mu ne ko ah, alors c'est cette culture là cette finesse là cette beauté relationnelle sociale là qu'on veut nous enlever en nous parlant de salafisme de mais pourquoi moi ce que j'ai puisé dans les écrits de Seydil Haj ou dans les écrits de Serigne Touba, je ne trouve nulle part dans mes autres lectures de par le monde des choses aussi belles. Je ne trouve pas. Pourquoi on veut me dire tu vas être du jour au lendemain wahhabiste ou... Non Ce qu'on a ici, ça suffit largement. C'est meilleur que ce qu'il y a là-bas. Donc les gens qui vous disent là, oui, euh, le, mémorandum de Pastef, c'est faux. Notre islam est l'un des meilleurs au monde. Et Serine Touba n'a jamais demandé à qui que ce soit Mouy Biwa bi genne Adine, mag ne ko dangay dem ci Lat Joor jaale ji ko li sa waajur yoroon ci teraanga mu mu delloo la ko daf ne leen jomb na moom yàlla di yëg ni mu ngi dem di diisi soxla beneen buuru àddina ndax ku def loolu yaa ngi mel ni weñ wu ay dem àll ba di ca xéew il avait voilà sa réponse pour wan la ni mu kenn kennale yàlla jomb naa dem ca Lat léegi ñi doon jaxase ba ñu demee ca Lat Joor nettali ko ko ne ko doomi Mor Anta Sali ji lii la wax jàpp ni Lat Joor da koy jàpp wala da koy toroxal wala nangam nangam Lat Joor ka ko ko nettali da ko ni yéen yéen a ma tane ndax yéen yéen ay weñ wi man nag maay dem àll bay

pas des idéologies importées. Ceux qui disent ça dans PASTEF, ce ne sont pas des patriotes, ce sont des complexés. Ce ne sont pas des patriotes, c'est des complexés. Mais c'est une chose. on ko dit. ñun Sénégal roy rek la Qui dit roy Arabi bi

qui est le berceau de l'humanité. L'humain est descendu ici chez nous, au lac Victoria. Et par petits groupes, ils ont marché le long du Nil pour aller habiter. À l'époque, à l'époque, on pouvait traverser à pied de l'Afrique vers l'Europe. C'est quelques kilomètres. Mais avec les changements climatiques, l'eau est montée, mais les humains sont partis d'Afrique, ont euh, peuplé l'Europe, ont peuplé l'Asie, ont peuplé les Amériques par le détroit de Bering. C'est parti d'Afrique. Vous les jeunes, ne vous laissez pas manipuler ces gens-là qui vous donnent ces instructions-là, ce sont déjà des manipulés. Ce sont des complexés. En vertu de quoi nous devons changer au ni solo di sol ay kopati yu gën tenue afghane pourquoi tu peux porter ce que tu veux mais à l'intérieur de toi-même sois authentique soit authentique. Maintenant, voilà ma proposition. Dès la semaine prochaine, buñ Je pense que si je le fais avec le cesse, je le ferai. Si je le fais sans le cesse, je le ferai j'ai les moyens de le faire donc en tant que président du CES je vais prendre une initiative je vais organiser dans les 46 départements du Sénégal et dans la diaspora des débats pour que les Sénégalais nous disent en âme et conscience, sans affect, leur réponse ci li may bëgg a laaj wax naa ni critère yi am boo demee États-Unis dañ naan la il faut nga nekk ku juddoo États-Unis nekk nekk citoyen américain il faut nga am 35 ans il faut nga dund États-Unis un minimum de 14 ans yii mooy critère. yi boo ko defee rek mën ngaa nekk candidat même buñ la condamné ci lii walla ci la mais bi ma ko waxee man fii samay collaborateur am benn collaboratrice bu ne ma waaw yow nan ngay def jigéen ñi ñu violé nan ngay def jeunes yi ñu sàcc seen xaalis muy xaalisu état deniers publics

vis-à-vis de nous les femmes yi nga xamni amuñu doolé ay goor di ñu sakku ci luddul suñu coobare di ñu toroxal di dagg suñuy caq suñuy euh, bijou donc yow même boo nee na ñëpp nek candidat laaj ñu ñun ndax d'accord nañu ci ko xamni nous dañu ko condamner condamné condamné condamné définitivement comme li Karim Khalifa Sall nga avons dem appel dem cassation dieu watch différé appel machin ba avons condamné définitivement wax waxuma mungi nek première instance wara dem appel des na cassation xawma ma kañ lay jeex mais même buñ ko condamné wul dama bëgg pour me soutenir candidature c'est-à-dire me soutenir mu am droit nek candidat bu jaré ma xeex ceeg Macky Sall ma xeex ceeg Macky Sall bu ko jaré j'exige de lui qu'il prenne l'engagement ci bir débat yoyu na yoni wa Pastef na yónni ay militant na yónni waa Yewwi ñu wax ne ñoom d'accord nañu ci ku ñu condamné ci diffamation maanaam yàq deru nit d'ailleurs ki ko ko ki ko ko tuumaal Mame Mbaye Niang man mii waroon naa ko ko tuumaal mais damaa jëfe li ñuy jëfe États-Unis États-Unis homme public

Euh, euh, des états xam États-Unis dafa 50 50 états am niveau fédéral Les États-Unis ci un gouvernement mais état bu ont dafa gouvernement mu ni buñ CEDEAO euh, Union des États de l'Afrique de l'Ouest Sénégal a un gouvernement un parlement mais le CDAO est niveau fédéral et un niveau état léegi ñu wax ne ku ñu condamné ci yàq deru jàmbur te amoo ci firnde indiwoo firnde walla ñu condamné la ci yàkkataan xale bu jigéen boo xam ni nanguwul mooy mooy viol wala ñu condamné la ci euh, sàcc alalu senegal euh, comme li ñu jiiñ Karim Wade ak Khalifa Sall ba tey c'est mën nga nekk candidat ñoom nañ ko wax bu ñu bu ni c'est pas grave nañ ko wax man en tout cas dina ubi débat yi jeunes ñëw journalistes ñëw ma financé ko avec l'argent du CES puisque ci liy jàmmal dëkk bi la bokk puisque ñoo ngi naan bu nekkul candidat ñu taal dëkk bi waaw léegi na nekk candidat mais na wax ne même bu ñu ko falee président de la république